di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàcc waaye ci seen rajo télévision ak Asfiyahi euh, ñu ngi fii tey euh, ci zawiya euh, Cheikhul Khalifa si Sy Serigne Babacar si ku ne xam na ne mu ngi fii ci biir zawiya bi tëdd moom Serigne Babacar si waaye ñu bare bari xamuñu ne am na ñeneen ñoo xam ne tamit ñu ngi tëdd fii ci wetam bu ko defee balaa ñoo tàmbali rek ci biir léegi la ñuy dugg daal di leen wanale d'abord ak rawdu Serigne Babacar si léegi-léegi mbokk yi ma ak yéen ci loolu أين منه من اللقاء من اللقاء أين موضوع أين ميسي comme ni ñu leen ko waxee léegi léegi ci euh, tàmbali bi euh, ñu ngi fii ci biir zawiya Serigne Babacar Sy sama ginnaaw nag yéen a koy gis euh, ñu ngi fii ci rawdu bi nga xamante ne fii la ñu denc sunu maam Cheikh Sidi Aboubacar Sy radiallahu taala anhu yal na yàlla yokk leeram te tax ñu ci barkeem ci biir rawdu bi nekk sama ginnaaw foofu lañ ko denc moom xalifa bi ci 1957 moom nag mu nekkoon sunu sëriñ ci xalifa boo xamante ne ku ne xam na ne mooy bàyyi Serigne Moustapha Sy Jamil foofa ca Dakar eh, di bàyyu ki nga xam ne mooy Serigne Mansour Sy borom daara ji eh, nekkoon fi xalifa eh, ba 2012 borom daara ji nekkoon bàyyu Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum nekkoon bàyyu ki nga xam ne mooy Serigne Sidi Ahmed si ca Dakar ak it Serigne Papa Malick Sy mi nga xam ne moo fi jóge lu yàggul Cheikh Sidi Aboubacar tëdd fii ci sunu ginnaaw waaye tamit tëdd fii ak ki nga xamante ne mooy soxnaam di soxna as sukan soxna as sukan fii la tëdd ñu bare bari nag xamuñu ko waaye seen rajo télévision yi di len ko leralal mom soxna sukan fi le la dal di feggo ki nga xamante moy Cheikhul Khalifa Aboubacar si bu ko defé li ci top moy dañuy dem aussi wane leen ñeneen ño xamante ñu ni fi ci zawiya bi ci penku jumaaji ji fi mbokk yi ni leen ko waxee sànq ci biti rek ñu ngi fii ba tey ci zawiya Cheikh Sidi Aboubacar Sy radiallahu taala anhu nekk ak yéen fii ci fi nga xamante ne sama ginnaaw bu ngeen ko gisee am na rawdu bu fa nekk rawdu boobu nag ki fa tëdd mooy soxna Astou Seck soxna Astou Seck nag soxna Serigne Babacar Sy la woon radiallahu taala anhu Euh, ku dégg soxna Astou Seck euh, bi nga xam ne moo jur euh, ki nga xam ne mooy Serigne Mansour Sy borom daara gi Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour mi fi nekkoon xalif général des Tidiane borom daara gi borom dara yi borom dara daraja gi borom sañse bi léegi nag dañuy def lu dul euh, génn euh, léegi euh, ci zawiya bi ci penku bi am na yeneen rawdu yu fa ne ñu wanale leen ak ñi nga xam ne ñoo fa tëdd présenté leen kenn par kenn ba ngeen gën a miin ñi nga xam ne ñoo tëdd foofu ci seen rajo télévision Asfiyahi léegi léegi ma ànd ak yéen ci lool. mbokk yi niñ leen ko waxee léegi léegi ñu ngi fi bàyyi ko léegi léegi ci biir zawiya Cheikh Sidi Aboubacar si ñu ñëw génn ci zawiya bi bu ñu jàddee nii ci sa ndeyjoor rek Eh, da ngay eh, daal di bàyyeekoo noonu eh, fii ci sama gannaaw nag ngeen gis batiment boobu foofu tamit am na ñu ñu fa denc am na ay kilifa yoo xamante ne ñoo tëdd fii ñu tàmbali ko ki nga xam ne mooy soxna Umu Kalsum si soxna Umu Kalsum si doomu baaba Babacar si la moom nag moom ak di Jamil bi nga xam ne mooy taawu Serigne Babacar si ñoo bokk ndey ak baay soxna Umu Kalsum si moomee ñu ngi ko denc fii ci atum 2015 muy soxna Umu Kalsum si waaye tamit mu feggoo fi ak rakkam Serigne Babacar si jur jur leen di soxna Zeynabu si moom tamit fii la tëdd ci ci sama gannaaw soxna Zeynabu si moomu gannaaw moom ki nga xamante ne mooy soxna maam Xaar Sarr tamit fii la tëdd soxna maam Xaar Sarr boo ko déggee soxna la ci Cheikh seydou mohamedou Mansour borom daara ji nekkon fi khalife général de Tidiane soxna mam khar sar nak ma nga baye ko ci xombal xombal gemu mu soxna mam khar gannaaw mom ñu fi denc it ki nga xamne moy soxna Sofi Dem soxna Sofi Dem ku ne xam na ni momit soxna Serigne Cheikh Tidiane ci Al Maktoum lawon soxna Sofi Dem dekkon fi ci keur gu mak di keur Serigne Baba keur si nekkon fa ak Serigne abdoulaye Aziz Al Amin ci souf fofé la soxna Sofi Dem nekkon mom nak ku ko xam ne xam ne moy bi yaay moy Cheikh Sidi Mouhamadul mustafa si ak Maktoum mi nga xam ne moy responsable moral mustarshidin wal mustarshidat fi lañ ko denc muy soxna sun Sofi Dem buñ ci joge mu dess ki nga xam ne moy soxna Kiné Doudou si mom tamit mu ngi teud fi fegok fek ay ay yaayam ak it ay ay ay soppeem ay ay euh, di moom tamit nekkoon surtout Serigne Babacar si muy soxna Kiné euh, Doudou Sy ñu ngi woon fii léegi léegi ci penku jumaay Serigne Babacar Sy ba tey sax euh, ci porte bu njëkk bi nga xam ne boo génnee rek ci sa gauche moom ngay njëkk a jot nga doxantu ñëw léegi ñu ngi fii jàkkaarloog rawdu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin porte bi nga xam ne moo jàkkaarloog moom tamit am na ñu fa tëdd porte bii nga xam ne moo nekk ci sama gannaaw euh, boo ko xoolee am na ay rawdu yu bëri yoo xam ne ñu ngi ci biir euh, ñu wanale leen ak ñoom Euh, présenter leen bu ko defee ngeen xam ñan ñoo fi tëdd exactement ak seen i njaboot euh, bu ko defee Serigne Saliou Sarr moom fii dañ ko denc euh, Serigne Saliou Sarr jarbaatu Serigne Babacar Sy la radiallahu taala anhu moom tamit frère am nga xam ne mooy Serigne Abdourahmane Sarr fii la tëdd ñoom ñëpp ñu ngi tëdd fii ci peggu ci penku jumaay Serigne Babacar si waaye tamit soxna Asietu Sy bu Serigne si Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum fii lañu ko denc ci biir Eh, ci eh, juma ji serigne babacar si eh, fi ñu nekk ba tey ba tax na ki nga xam tamit mooy soxna aminta kan di doomu bàyyi ki nga xam ne mooy soxna sukan Euh, nga xam ne Serigne Abdoul Hamid kan mooy baayam euh, moom tamit mu ngi tëdd fii euh, soxna Aminta Kane moomee nga xam ne moo jur ki nga xamante ne mooy soxna Sofi Dem biñ leen wax léegi sànq mooy yaayu Serigne Moustapha Sy Al Maktoum ak ki nga xam ne mooy Serigne Mansour Sy Al Maktoum ñoom ñëpp ñu ngi fii ci suñu ginnaaw tëdd fii ñu ñaanal leen yàlla yàq yokk seen leer taas ñu ci seen barke ba tey ki nga xamante ne moo nekkoon lépp Serigne Cheikh Tidiane Sy Al ñu koy woowee Serigne Oumar Samb bu Serigne Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum moom tamit euh, mu ngi ci biir tëdd euh, ba boo ko defee benn benn am na ay soxna Serigne kër si tamit yu ñu denc fii euh, ñu jiital si ki nga xamante ne mooy soxna Mariam Kunta nga xam ne moo dëkkoon Ndiassane euh, kër gi Serigne Babacar Sy tuddee woon Ndiassane foofu la nekkoon euh, soxna Mariam Kunta mu ngi fii ci sunu ginnaaw tëdd fi waaye ki nga xamante ne tamit mooy soxna Zeynabou Diagne moom tamit mu ngi fii ci sunu ginnaaw tëdd moo nekkoon foofee ci Rue Thiers soxna Zeynabou ku ne xam na ne mooy yaayu ki nga xam ne mooy soxna Hadisi bintu Serigne Babacar Sy nekkoon caatam moom tamit it euh, mu ngi fii tëdd soxna Xadi Si boobee euh, di euh, yaayu ki nga xam ne mooy maam Omar Ndiaye mi ngeen xam ànd ceeg magam bu baax ba di Pape xalifa njaay ñoom ñaar di njabootu soxna Xadi Si moomee nga xam ne moo nekkoon caatu Serigne Babacar Si nekkoon foofu ci Rue Thiers waaye tamit mbokk yi soxna Aïda Yacine Si moom tamit mu ngi tëdd fii ci atum 1998 eh, ci la génn àdduna mu ngi fii feggoo ak yaayam ki nga xamante ne mooy soxna Zeynabou Diagne nekkoon soxna eh, ci Serigne kër eh, si ba tey ñu ñëw ak ci ñi tëdd fii ci sunu gannaaw ba tey soxna Umul Xayri Sy mu ngi fii tëdd soxna Umul Xayri Sy nag boo ko déggee mooy borom waañ wa moo taxoon alxaaji dut kenn mbay di ko way naan asmaawu bintu Abi Bakrin Euh, moo nekkoon euh, yoroon waañu yonent bi sallallahu alayhi wa waaye soxna ummul xayri mii moo yoroon waañu yon waañu euh, Serigne Babacar Sy ku ne xam na ni moom mooy yaayu soxna Umu Kalsum Mbay mi ngeen gën a miin ci turu soxna Kala Mbay di yaayu soxna Daba Mbay ñu nekk fii ci waañu Serigne Babacar Sy yor mission yi yor mission bi yor daayiratu ñaxmati di ko doxal comme ni ko seen wayjur ya daan doxalee ci ndigal ak ci topp ndigalu xalif général des Tidianes waaye tamit doomu Serigne Sidi Ahmed si ñu ngi fii tëdd euh, Serigne Sidi Ahmed si boo ko déggee mooy taawu Cheikh Seydil Hadji Malick na maam Fama siit fii la tëdd moom nag doomu Serigne Sidi Ahmed si tëdd euh, ba boo ko defee benn benn euh, daal di feggoo ki nga xam ne mooy soxna Safiyatu si soxna Safiyatu fii si boobee nag bu ngeen ko déggee mooy yaayu Serigne Alioune Sall bu jàmmalaay nga xamante ne bi mu génnee àdduna léegi yàggul Serigne Alioune Sall bi nekkoon foofee E, ca e, jàmmalaay e, ki nga xam ne mooy yaayam di soxna Safiyatu Si ki nga xamante ne moom lañ leen di mujjee limal ci ñi tëddee fii mooy ki nga xamante ne mooy soxna Roxoye Si mu ngi tëdd fii ci sunu ginnaaw bokk ci ñi nga xamante ne ñooy njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick njabootu Serigne kër si ñi nga xam ne ñoo tëdd fii ci sunu ginnaaw mbokk yi mu ngi noonu ñu ànd ak yéen léegi léegi ci rawdu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin बिस्मिल्लाह मई बगवाई संग दी गर दी वई Serigne Abdou Aziz Al Amin moomee ñëpp xam nañ ne njabootu Cheikh Seydi Aboubacar Sy la radiallahu taala anhu yoroon service bu Seydi Babacar si nga xam ne joxoon na ko service bu yàgg-yàgg mu koy doxal di doxal mission bi ni mu gën a rafetee nee nañ sax fukki at ak juróom benn eh, ci la doxee eh, Serigne Babacar si jox ko lu bëree bëri ci kër gi mu daal di ko yor ci yor bu rafet Serigne Abdou Aziz Al Amin moomee eh, jóge fi ci 2017 moom nag moo nekk fii ci sunu ginnaaw tëdd fi Serigne Abdou mi nga xam ne Eh, soppeem ba eh, xaritam ba eh, magam ba kilifaam ba Serigne Cheikh Tidiane Sy Al doon na ko wax naan bu ma doon am taalibe benn laa ciy am muy Abdoul Aziz mii xaw may atam waaye lu ma neex teg ko ngir jomam loolee di waxi Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amin di wane rek ne Serigne Abdou def na fi eh, mission bu remarquable mission bu am solo ci kër Cheikh Seydil Hadji Malick ba dañ koy joxe xilaafa gi mu jógee fi jox ko Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour Serigne Abdou Aziz Al Amin ñu ngi koy ñaanal yàlla yokk leeram te tas ñu ci barkeem moom mi nga xam ne moo tëdd fii ci sunu ginnaaw kon bu ngeen ñëwee rek fii ci zawiya euh, Cheikh Sidi si Sy radiallahu taala anhu euh, ci penku bi bu ngeen doxee tuuti euh, di ngeen gis fii nga xamante ne niñ ko defar ni mu yànjee ñu nekk ci chantier yi pareegul Serigne Abdoul Aziz Al Amin ak Tidjani moom moo fi tëdd mbokk yi mu ngi noonu ñu wanele leen ak Serigne Abdou jóge fi dem feneen la leen ak yeneen rawlu bu ko defee ngeen gën a xam lan mooy Tiwaawan ak ñan ñoo fi tëdd kan mooy njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick ak ban mission lañ doon doxee ak yan at lañ fi jógee yooyu yëpp di lu am solo nga xam ne eh, seen rajo télévision Asfiyahi yi eh, moo leen koy wanal moo leen koy jagleel ngeen xam li